jaajëfal. kon na kon monsieur le maire Talla Sylla ñu ngi lay jaajëfal. ci jotaayu yiw bii nga ñu boole. nee na ci jotaayu yiw bii nga xamante ni boole nga ñu ci. nee na ñu ngi dellu di ñaan yàlla bis bi luñ ci ñaan yëpp yàlla na lépp lu ñu ci ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul. muy def ko aw yiw. teg ci. fekki fekki fekki. innocent yi nga xam ni. innocent yi nga xamante ni. ñoom la yàlla yóbbu seen bakkan. ñoom la yàlla yóbbu seen bakkan. ci bi nee na ci fitna bi nga xamante ni moo tàbbi woon ci réew mi. te nee na te fitna nag. mu ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee. nee na yonent bi nee na fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na ku koy yee. ñun ñëpp nañu na ñun ñëpp nañu sax ci communiqué. sax ci ñaan. sax ci ñaan. wax ak suñu njaboot. na te wax ak nag sunu njaboot. lu mel ni bu xewatee yi ci kër lu mel nii su xewatee ñu waxtaan ak njaboot gi téye leen ci kër yi. nit ku nekk nag mën ngaa doxal sa bëgg-bëgg. mais mu jaar ci cadre bu normal. nee nit ku ne mën nga ñaxtu. laaj li nga bëgg doxal ko waaye teg ko ci cadre bu normal. loolu nag moo def Sénégal stabilité bi fi am am fii. nee loolu moo des ci Sénégal ba tax stabilité bi fi am am fi. ci jamono bii nu toll ci li xew te sabab mbir mi ca njëlbeen mu mel ne lu jotale ñaar la woy toppe ji ak kintumal mu bëggoon a sàkku ci kilifa diine yi ni ñu defee jéego dem ci président de la république ñu lëkkaloo ko dalal woy toppe ji ci loo xam ne amul média kooka buy dem ànd ak ñaari nit ñoom wax la kon la kon la sababam mu dem teg plainte mu wax ko kilifa yi bu ko defee kilifa yooyu ñoom ñoo am buntu gannaaw buñ ko dégloo ñaan ko moom mi def plainte mu dindi plainte am ba pare garantir ko it ne ko di nga am sécurité ci réew mi wëlbatiku sàkku ci ki nga xam ne moom la tuumaal ñoom itam ñu dalal ko déglu ko bu nu paree loolu lépp ñoom delluwaat ci président de la république ci diggante bi nag na lépp dal ndax nit mën na jóg woote manifestation te jubluwu ci lu dul a ah, li nga xam ne mooy sañ-sañ bu mu am ci réewu démocratie te mu jaadu ñu nangul ko ko waaye bu ñu nekkee ci jamono bu rëb ñiy gàmmu ak ñiy ras dem bokkuñu ku ne day dal ci biir dal googu ci la lu ne mën a amee waaye buy taw kenn du fobeere yéen ñii nga xam kenn ku ne dugal na ci loxoom ba boobaak léegi nii muy mel ni nu bëgg loola na law ba ci yeneen dëkk yi ci biir Sénégal ñu wëlbatiku di rafetlu jéego yu kilifa diine yi ci senegal dox ba seeti président de la République Macky Sall sàkku ci moom mu def li aju ci moom ngir indi jàmm moom itam mu dégg leen noonu seet la aju ca moom mu jëfe ko kilifa yi ci seen bopp rafetlu ko ba ñu gis résultat yi ci jotagu na am yaakaar di juddu ndax nag waxtu wi gën a lëndëm ci guddi gi ci la leer gi di tàmbale ñu ne bañ na yaakaar amatul ca la raak yaakaar di tàmbali hmm. sew sew bi ne ci biir nag mooy bunt bi mu war a jaare rek te fii ci Sénégal kilifa diine yi ñooy kilifa te ku nanguwul am kilifa kenn warul nangu nga yëlif ko bañ a këf lii téye ko ba teg ko fu mu néewul ba mu jaral len, andi fi conséquence yo xam ne euh, ëllëg du baax bul déglu kenn jëfal bul gestu kenn dawal ku dee ñu fab sànni fee delluy wax ak ña fa dama dem ci sëg fekk fa képp nit mu ni cundum ci biir bàmmeelam ak i jëfam ma xam ne ku xam ne fii dig mu jëm bu yeewoo day teel a jóg ciy mbiram sëñ Fallou cëy yàlla cëy àdduna cëy bàmmeel delluwaat ci alxuraanam mag ñi laaj ko ah waaw sëñ Fallou lu waral li takat biig la woon kaso rajab mu ni cëy yàlla buñ ko jàppee dina nu jàpp buñ ko jàppul dina nu jàpp teen koo jàpp bala munoo jàpp cëy àdduna buñ ko jàppee jàppunu buñ ko jàppul jàppul ñu teenu koo ba bala munoo ba cëy bàmmeel buñ ci defee dinañu ci def suñ ci deful dinañu ci def teen cee def bala ñu cee def kon dëkk bii nga xam ne kilifa yii fi toog xam nañu ni dëkk la boo xam ne bu ñu minoon sëñ Ablaye Yàqin moom itam bisug ñaanam tey la ñuy wéeru ci loolu lépp nag Kazu Rajab bi ñu jóge ñaanu sëñ Ablaye Yàqin gi ak lépp loo xamante ni rek maanaam sabab la bu rafet bu ñu mën a wéeru ba suñu borom rus ñu ci ba defal ñu ci tawféex googu ñu ngi ciy wéeru ngir sàkk jàmm jooju moom jamm nak soko beugé dang koy xalat di wax di jëf mo né luma namu warna luma agalé da jot te lu jot ma yombal ko nanu yombalal jamm ji li ñuy sakku ci ñëpp rek moy ñëpp dal waaw ñëpp dal rek yalla nañ ko suñu borom def ta am nañ yaakar ci ñaan gi fi génné